tàccu leen ma singoom bu baax a baax a baax a baax a baax singoom Bonjour parce qu'il faisait jour bonsoir parce qu'il fait soir olof Njaay nee na bés du tuuti borom lay tollool à ah, bës bi tay nii la mën a mel français bi da ko àbb il a dit qu'un jour n'est jamais petit il est toujours égal à son propriétaire anglais bi këfaat ko he say that a day is never small it's always equal to its hour Baye Ndiaye anna jam jàppo oh, jotaati naa xale yi kan gi sooluma aji eh ñaari na bu nu bokkee ca naan babu jeex ca ñaari ma bu nu bokkee ngàttul dañu dugg réew ci ngàttu addin koo sëmbu ci lamb yóbbu nga bay da wala góore addin laay ee ee ee jag jag beral jaraw raaraw raj xanaa du may xale bonbon si naa bi booba sama waa ji ah defal nii man bu ma kontaanee rek comme dama ëppal <laughs> damay wane sama bopp bokku leen ko yéen ñëpp xaj ngeen ki ma gën a ëppal laa leen di wax njuufaan ñoo bokk koñ pël fuuta la olofam setul du ci yam mu dugg ci jàkka ji lu fa waay wax mu ne moo koy jottali te olofam setul ñu nekk ci dëj boo duggee ci jàkka ji jàkka ji dana selaw ñii ngi jooy ba seen mbaqate di génn ndax ki génnoon àddina dafa sori woon ci ñun kenn ku si nekk sa xol naqari mais comme que njuufaan silence da koy déranger bi ñëpp toogee calme moom dafa jug di nuyoo salaamaaleykum mbokk jullit yi nongo jooni nong memar bayla kante jaaja marma dalanda no wii ka e eh, mi salmini nag boobo e eh, eh, ñangimo o wii ka na tu ndeke am na benn paa bu muy déranger ci lu mu yëgul njuufaan lu mu wax daanalee ko nong lu mu wax daanalee ko nong dernière nong bi paa ko dagg fini nos bêtises. tu nous emmerdes à la fin. non, non, non, non, non, à la fin tu Comment tu Écoute-moi bien. Nous ne sommes pas tes marionnettes. Bah, mais si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon tu te tais, nom de Dieu. paa day wax bay bëgg a daanu nga xool ko xam ne kii ndeysaan mooy paa yi gaaw énervé yooyu ñoon nañ nekk ci climat wu tàngaay seen yoon neew ci dañuy def tool pedro def costume laal seen kol fi ma njuufaan neexee moom li jëntiwul paa bi bi day daaneel njuufaan di jëlaat loolu sa kalaati la nam jooni noonu e bo wi ka so waɗi sokkula ñangimo e ɓe naata e ndere ah, ngeen baal ma dafa am lu ma bàyyi ndax yéen bàyyi ngeen xel làkku pël fuuta yi minute làkku pël fuuta pël fuuta li dax ma bëgg leen ñoon seen lépp gaam la seen làkk lépp mélodie la jarul nga leen di indil ay instrument indil leen guitare balafon tungune mbëng mbëng ndeer sabar talmbat cung nanu wax buñ woy ñoo dàqale làkk ci àddina li ma lay wax boo ko weddee laaj ko boobu pël fuuta bu taxaw ni nee ni baabi baytu naatu sibe na ma na ma na wajji sibe na ma na ma na wajji sibe taatay ndee maa be wala satu faykun na inne mew aliou sako inne mew aliou ɓe jallake eɓe jahata beddo ko mew aliyi na tu pulla fuuta ñoo dakkale lakka ji addina njuufaay weeru koor bu jotee booy Medina yeeg plateau ñoom xam nga dañuy yeete xëdd mooy booy naan yeewu leen jóg leen xanaa xëdd jotul waay yeewu leen loolu la dégg mu koy énervé ñu fan ba mu fépp fu Fuuta nekk ci dakaar génn na la fa yóbbu la ngaje di la répéter changé gamme bi danaan il ma dee jug leen su la doon xëdd il jug leen su la doon xëdd mi wi mi man wax naa jul be yàlla il ma dee immode sulla dam immode julbe yalla immode wuyaay immode yow immode sulla dam im dem leen waaw waaw ndeysaan sunu bàyyi Ndioufane imaam a def dernière déclaration ci néew bi di tàggu di wax lim xam Ndioufane puusati koog bolog bu rëy bi ñëw taxaw imaam di wax mu ne mooy jottali salaamaaleykum mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee jooni noonu si suba ba léegi eh, imaamu nee na l'homme mooy remède de l'homme bi tubaabu wakk boobu olof mu ne niti niti mooy garabam afa mi ka kenn xamul li muy wax mais da nga naan waa par force njuufaan mu ne imaamu nee na si allah jabi saga mu sangu nanu néew ba nuppi yàlla dogal ñu jullee néew bi ba nuppi yéen ñëpp tàllal leen seen loxo tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yéen ñëpp tàllal leen seen loko ñu ñaawal néew bi ñaawal néew bi Ndioufane naan ñaawal néew bi ci noonu laay tàggatoon yee tàggatoog yéen di leen ñaanal naan leen lii ba joor ta tombe ñetti tombe xabloon xabloon ku mbur raaraasi senara dem koy adi mun ta adi mun ta mu kaakee janara alkubee c'est mon fils si ñoom dajji nga am